imaamu Shaafii dafa wax ne tasawufu tadribu nafsi ala alubudiyati wa raddiha bi ahkaami rububiyati mu ne yooni sufiyanke bi ñuy wax mooy nga yar sa bakkan pour nekk jaamu yàlla ak delloo bakkan bi mu nangu atte yàlla yi moo tax ña jiitu woon ñiñ daan tuddee suufi léeg-léeg nga gis kuñ tuddee suufi fekk dëddu àddina la ndax xasan basri dafa wax ne damaa gis benn sufiyanke ci wër kaaba gi ma génnee dara ci xaalis jox ko mu ne ma baax na ndax man am naa ñeneen ci dërëm rek nga xam ne kon ku dëddu àddina suufi lañ ko tuddee woon feneen mu tudd benn sufiyanke ne bu taxutoon nag moom du ma xam sew sewi ngistal yi nga xam ne ni nit mën na koo def te ko yëpp kon nga xam ne ba tey sufiyanke mooy koo xam ne nii daf doon mooy tindiku ngistal sufiyanke yi ñooy ñan ñi nga xam ne seen zaahir dañoo jëfee alquran ak sunna dañoo jëfee alquran ak sunna xam-xami tasawuf mooy ñi nga xam ne dañoo jëfee alquran ak sunna ba loolu jollil benn leer ci seen xol képp koo xam ne nii topp nga seen yoon rek leer googu dana jolli ci sa xol nga mën a am dégg yi nga xam ne ñoom moom lañ doon dégg mu nekk loo xam ne mooy dax xam-xam bi benn woykat ci sufiyaake yi dafa wax ne baytul wilayati qusimat arkaanuha saadaatuha fihi min al abdaali ما بين صمت واعتزال دائم والجوع والسهر النزيه الغالي لا مطمعا فيها فلست من أهلها ما لم تشاركهم على الأحوال كم دفعوا احنا نيجي ولاية دينكو سيد لمنك ينتي كون من ني سان ني نيجي ولاية موي نيغا خامل نيوم لا ني تودي ابدال خمغا والي امنا ني تودي اوتات موي جامونو جو نيك دا نام قطب واي نيغا خامل مو دون مقام النبي صلى الله عليه وسلم ñeenti ñi nga xam ne ñoo doon maqaamu xulafaa arbaati ñooy awtaad yi juróom-benn yi nga xam ne ñoo doon ñu desoon ci fukk yi am ñu ne juróom-ñaar ñooy abdaal yi abdaal yi ak budalaaw yi duñ benn budalaa mooy wàll yi nga xam ne dem nañ ba àgg ci maqaama foo xam ne mën ngaa fii London di leen gis ci London te fekk ñoom ña nga am na ñoo xam ne nii ñooy nuqabaaw am na ñoo xam ne nii ñooy nujabaaw nga xam ne dañuy tolloo ñett téeméer ak ñett leegi nag ine neegi wilaye to ëbdaali ñoko séddo mu ne boo buggee bokk ci lëbdaali nag nooy def noppi beru xiif ak xoole guddi goo xam ne xoole guddi gu mucc ci ayib maanaam waxuñ xoole guddi ngir ngir danse waaye xoole guddi goo xam ne ci dundal mbir yàlla mu ne nag bul keme ma bokk ci sufiyanke yi bu fekkee haal boobu ñu nekkee jéemoo koo melloo li tax ma indi bayt yooyu damaa bëgg a wax ne li kooku wax ne mooy abdaal yi ci lañ nekk mooy ne suufiyanke yi nekk nañ seet ndax loolu am na ci lenn lu uuteeg li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekkoon boo xee ne noppi xam nga ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ne man kaana yuminu billahi wal yawmil axir falyaqul xayran aw liyasmut ku gëm yàlla gëm àllaaxira na wax lu baax wala mu noppi sufiyanke kooku la koo xam ne nii dafay beeru nit ñi waxtu woo xamee ne du jëriñ nit ñi wala nit ñi duñ jëriñu ci moom mu beeru nit ñi loolu it ku ko weddi ne bokk ci yoonu yonentu xam nga yoonu yonentu ndax yonentu bi sallallahu njëkk ñuy wàccee ci moom wax yu daana toog ci xaara xira ay ñeen fukki guddi di jaamu yàlla kon beeru yi sufiyanke yi def di jaamu yàlla foofu la jógee buy xiif xiif waxul rek xiif pour grève defe déedéet waaye koor gaa ngi ñëw xam nga ne koor ci bonk lislaam la di di oor waxtu bu nekk mooy seen xiif bi waaye xiifuñu rek pour wane ne mën nañoo xiif xoole guddi boobu lim ci jublu mooy ñiy dundal guddi moo tax mu ne bu fekkee ne bokkoo ci xaal yooyu nekku ci yow bul jéem a bokk ci gaañooñu bu fekkee ne suufiyanke mooy tudd yàlla ana moo dàq tudd yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla kaana yazkurullaha fi kulli axwaalihi daf daan tudd yàlla ci mbooleem xaalam yi buy tëdd buy toogee buy jug bu duggee ci douche ba génn bu jàppee bu jàppee ba pare bu gisee meññan mu bees bu gisee weer bu tawee bu ci mbooleem xaalam yi ci la daan tudd yàlla kon ñi nga xam ne ni ñi ngi tudd yàlla ci seen mbooleem xaal yi yonent bi sallallahu alayhi wa moom la moom la ñuy roy kon sufiyanke yi génn yoonu yonent bi sallallahu alayhi bu fekkee sufiyanke mooy koo xam ne nii dafa suufeel boppam dafay toroxlu seetal ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekkutoon kuy toroxlu yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa toog yàlla yónni ci moom malaak ñu ne Mikaayil laaj ko ne ko ndax ma def la ngay ab yonent di buur wala ma def la ngay ab yonent di jaam rek jibril junj ko ne ko tawaada ne ko toroxlu lal yàlla bi maanaa tànnal nekk yonentu di jaam yonentu bi tànn na nekk na di yonentu di jaam ibnu abbas ne boobu lañ gëj a gis yonentu bi sax muy lekk fekk mu ngi sukkandiku parce que kuy sukkandiku dafa mel ni buur nga ndax dangaa confortable te yonentu bi ba mu waxee ne moom jaam la rek boobu lañ ko gëj a gis muy lekk du sukkandiku ba ma jàngee xadis yooyu laa ne xanaa mag ñi lii lañ doon jàngee woy lekk di sukkandiku ñu ne la ko def nangam parce que ko am bàyyi la ko am bàyyi du def naa xam nga xale bu ndaw mën naa mën naa kii mën naa dégg affaire bi waaye boo nee ko ko am bàyyi du def nangam mën naa moytandiku loolu ba ñu xamee ne lii yonent bi daanu ko def loolu mooy yoonu sufiyanke bu fekkee ne mooy mbaax bu oyof ana ko gënoon a baax yonent bi ana ko gënoon a gënoon a oyof yonent bi sallallahu alayhi wa ku nangul jaamu yàlla yëpp liñ nekk boo déggee su sufiyanke de wax ne lu yàlla def neex na ma yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci lañ ko jàng bu fekkee sufiyanke mooy koo xam ne nii dafa dëddu àddina ana ku gën a dëddu àddina yonent bi ki nga xam ne moo doon ñaan ne allahumma jaal risqa ali muhammadin quutan yàlla defal dund ñooñ muhammad famille muhammad bi seen dund def ko rek muy dund rek am ci maanaam bu mu bu kooku amul ku ko gën a dëddu àddina amul ku ko ku ko dàqa muñ tin muñ gi nga xam ne moom la sufiyanke yi yaree jaam bi ba nga mën a muñ ku ko ëpp tolérance amul yonent bi toog naa rek benn jigéen joo xam ne daf daan def góor bu mu gis rek di la kaf café di la wax yu nekk yonent bi mu romb yonent bi yonent bi lekk mu ne seetal seetal ni muy toogee mu ngi toog ko ab jaam yonent bi ne ndax man lan leneen leneen lu may jaam mu ne xoola mu ngi lekk te ootewul sax yonent bi ne ko kaay lekk xam nga loolu muñ la kaay lekk amut ci loolu de jox ma ci li nekk ci sa gémmiñ gi yonent bi génnee lim doon lekk bàyyi lim doon lekk jox ko waaye foofu la ndaw si jubee boobu lañ ko gëj gis muy muy gis góor ñi di caaxaan loolu su sufiyanke yi passé wul loolu boo déggee Cheikh Ibrahim yi di wax ne bët bi may xool doomu aadama kenn mënu koo xool di ko bañ loolu yëpp ci ci yonent bi sallallahu alayhi ci lañ ko jànge léegi nag koo xam ne nii lislaam bi lu la réer rek nga ne amu ci wala loo déggul néegu lislaam loolu luñ war a moytandiku la gis koo xam ne moo la gën a bëgg yàlla moo la gën a ragal yàlla moo la gën a sàmm ci yàlla loolu mooy yooni sufiyanke yi rafet jikko ku ko génnee ci yooni sufiyanke dara desatut foofu ndax dañ doon rafetal seen jikko ndax ñoom dañuy wax ne boo rafetalee sa jikko ak nit ñi sax ñaawal sa jikko ak benn euh, muus sa jikko des naa rafet imaamul Xasaali ci kàngaami sufiyanke yi la bokk ba mu génnee àddina dafa am koo gis ci nelaw ne ko waaw nu la yàlla def mun ne yóbbu na ma àjjana ah xam naa sa xam-xam bu bari bi sa jaamu yàlla yu bari yi mu ne ko déedéet man daal dafa amoon bés may bind ci sama daa benn weñ sëpp ci daa bi ma bañ a tànqal weñ boobu bàyyi ko mu naan ba pare yërëm googu ma yërëmoon weñ boobu ak yaru googu ma defoon ak weñ bi ci la ma yàlla yërëme loolu ku dul julli sax boo ko déggee dana la neex naka la bi julli toogee nag di weddi ñooñu nga xam ne nii bu lislaam di des ba léegi ñoom ñoo tax Cheikh Ibrahima moom dafa wax ne yàlla moo ne tasawufa maarifatun wa ibadatun wa zahadatun fa man xalaa min waaxidi min haadihi fa huwa muddain haalikun laa najaata la xam leen ne yooni sufiyanke mooy xam yàlla ak jaamu yàlla ak dëddu lu dul yàlla mu ne kuy oote yoon wi te benn ci yooyu nekkul ci yow da ngay oote rek doo mucc te ñu gën a bëri ci nit ñi mu ne seen a yoon yi su fi ci seen àddina la ak seen bànneexi ba yi mu ne ellenteexoon ak bu ma xam ñooñu ellenteexoon ak ñooñu buñ ma xam kon ñooñu seen yoon kenn mënu cee nekk lu may koo xam ne nii yaa ngi ci yoonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam man ngaa toog léegi nga ne ma waaw yaa ngi wax sufiyanke waaye boobu léegi Cheikh Tidiane nee na Cheikh Ibrahima nee na Imaamul Ghazali nee na waaye ñeneen ñi nga xam ne duñ sufiyanke teñ compté leen nag ci jullit ñi ndax mën nga maa indil koo xam ne dana wax dara ci ñooñu mën naa wax koo xam ne xasanul naa lañ koy wax ñi jàng xam nañ ko ñi jàng arab xam nañ ko monde islamique bi amul benn jullit boo xam ne nii yaa ngi jàng te respecté woo xasanul naa kooku xaradaawi dafa wax ne xasanul naa dafa commencé ci dundam nekk sufiyaan ba ci kanam mu nekk mu mu nekk salafi ba ci kanam ba màggee dafa nekk suufi salafi wala salafi suufi kooku ca commencement am ba muy def licence dañ koo jox ne leen ku nekk na bind daal li mu gën a mébét ak ak yoon wu mu jàpp ne ci la koy amee mooy daal nit ñi yi ci gën mooy nit ñi nga xam ne dañoo bëgg xiw nit ñëpp am ko waaye nag xiw ak musal nit ñi mu ngi mën a amee ci yooni sufiyanke boo xam ne yatalaxasu bil ixlaasi wal amali li xidmati al insaniyati tariq al taalim alladi يجامع الأول في الخدمة والإخلاص ويفارقه في الاختلاط بالناس mu ne man de li ma gis ne moo mën a jub musal àddina bi mooy yooni sufiyanke boo xam ne dafay ànd ak sellal dafay ànd ak jëf pour musal doomi aadama yëpp human bi ànd ak nag jàngale goo xam ne dafay ànd ak yooni sufiyanke ci sellal ak jëf waaye dafay fasantikoo moom ci jaxasoog nit ñi ma wax ne sufiyanke itam dàqu jaxasoog nit ñi ndax cheikh ibrahim radiallahu anhu dafa wax ne العزلة لا أفضل منها إلا إذا كنت مفيدا أو مستفيدا مرادا أو مريدا باي دا واخني ويت امو دار لوكو گën lumay waxtu yi nga xamé ne bo génné da nga jëriñ nit ñi wala bo génné nit ñi jëriñ bu dul lool rek yaangi wét kon koku mu ngi jàngalé yoonu sufiyanké bo xamné da fay and ak jàngalé da fay and ak jaxaso nit ñi ndax bu taxato nak loolu ngeen mëna nek london ndax da ngeen di jàpp ne ñun kon ñu ngi ci réew xam ne ay kii lañ ay xéebal lañ ay nangam ak nangam ay nangam waaye da xam ne foo mën a nekk rek te sellal mën ngaa nekk jaamu yàlla bu baax mën ngaa nekk fii te fekk yaa ngi dox jëm ci yàlla am na benn borom xam-xam bu ñuy wax Saïd Hawa moom dafa wax ne suñ jamono ji jamono bànneex bakkan la jamono féetéerlu la te bànneexi bakkan yi ak féetéerlu yi dégg ak matérialisme dara mënu koo faj il faut ñi boole ko lu koy faj te mu ne maa ngi wax loo xam ne dama cee dogg mooy li ko mën a faj rek mooy yooni sufiyaan mu ne nag dana am koo xam ne dafa may laaj lu tax lu tax baatu suufiyee ndax baat boobu dafa bees mu laaj la baat yi nga xam ne nii dafa dafa dafa bees ci lislaam nekku fi woon waaye maanaa mi mu ngi fi woon maanaa yi sufiyanke naka jekk mu ngi fi woon bu fekkee mooy xiif bu fekkee mooy mooy xoole guddi bu fekkee mooy mooy mooy yaru bu fekkee mooy tawaado bu fekkee mooy muñ bu fekkee mooy nangul yàlla dogalam yëpp loolu yëpp mu ngi fi woon yoonu sufiyaan wan la la xusnu tawajjuh yi lillahi tabaraka wa taala jublu ci yàlla jublu goo xam ne nii jublu gu rafet la moo tax xasan al banna ji boppam moo waxoon ne laa shakka anna الصوفية من لب الإسلام وصميمه amul ben sikine yoni yooni moy xolab l'islam te moy l'islam deug motax bay mi bax bam don ñaanal talibi bi dafa woné wala walaa yeku xisru diini xazza muhibbina bali lu bull bull bi max daataay yàlla sama talibi ak ñama sopp bul def rek xolli ci diine muy seen cër waaye jox len jox len biir ba bul em ci biir bi waye jox len biir biir bi kooku serigne bobu lolou la ñaanal ay talibi تمورا نحن مونا نيون كات اوتو دارا نك ايتيو اي داف كلام صح واي سون ايتي لان لا اشتغال بالعبوديه وصدق العبوديه والقيام بحقوق الربوبيه لي ايتيو ييب موي فخي رك با نيك اي جامو يالله يو سيل اك جوخ يالله حقم لولو كو واخني كو واخني لولو باخوت فانا الاسلام جي بوبم مونغا واخني باخوت ku wax ne lislaam baaxul nag kooku moom sa wax beneen beneen wax la loolu laa jiitalee bala maa wax ci Cheikh Tidiane radiallahu anhu Cheikh Tidiane radiallahu anhu mu ngi dund ci maasa fukk ak ñaar maasa fukk ak ñaar ci la juddu maasa fukk ak ñaar wàllu yàlla yi dañoo dëppoo woon ne maas googu ci la xaatim wilaayatil muhammadiyya di ñëw du ma wax ci xaatim wilaayat muhammadiyya li may ci mujj gi kooku nasabam sharif la تلالام دمنا با اغلتي حسن بن علي ناخ سيدي احمد لا احمد لا بن محمد بن مختار بن احمد بن محمد بن سالم بن العيد بن سالم بن احمد بن احمد بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد الجبار بن ادريس بن ادريس بن اسحاق بن زين العابدين بن احمد بن محمد الملقب بنفس الزكية بن عبد الله الكامل بن الحسن المسنى بن الحسن الصبت بن علي بن أبي طالب كومو وش أحمد زيان رضي الله عنه نسي سلامة دومي سيدنا علي لا ستي دومي ستي حسن لا كون ستي فاطمة الزهراء لا كون ستي يونت بلا صلى الله عليه وسلم وأنا أقول يب loolu موي calalaam gi nga xam ne moom la fekk باي maamam bàyyi ànd اوتي loolu tuddoo ko ko ba dem ba àgg ci dara jaay góor ñi ba gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko anta waladi xaqan anta waladi xaqan anta waladi xaqan mu gis yonent bi mu ne ko yow suma doom dëgg nga suma doom dëgg nga suma doom dëgg nga kooku mooy na suñu Cheikh Tijaani radiyallahu anhu kon baayam Muhammad la tudd waaye Mahamad lañ koy wax waaye Mahamad yëpp Muhammad la waaye loolu lañ ko baaxoon a wax rek mu nekk sosu ci ron baayam ak yaay yoo xam ne mu ngi tudd Aïcha bin abi abdullahi muhammad bin hamd almaadawi tijaani kon yaayam moo askanu ci giit goo xam ne tijaana la tudd ñi koy askan ci ci giiti yaayam gi lañ ko askan yaayam Aïcha la tudd baayam tudd muhammad mu ngi juddoo fan aynu maadi la juddoo ci Jazaa'ir wax nañ ne maami ñeenteelam moo taxoon ca Marrakech jugee ci Maghrib gàddaay dem Algérie xaw ma nag loolu lu wér la ci taarix mun ci téere marocain yi lu wér la ci taarix wala xaccoo gi ñu xaccoo Cheikh Ahmed Tidiane na ñoo ko moom Maroc na ñoo moom waaye suul bi ñu ko suul war na leen doy jàng na alquran mokkal ko ci juróom-ñaareeli at juróom-ñaari at ci Seydi Mouhammad bin Hamu kooku mooy ko jàngal alquran maa ngi ko jaa maa ngi doon wax kii kii jur ku jur yaayam kooku Seydi Mouhammad bin Sadusi la tudd waaye ko jàngal alquran mooy Seydi Mouhammad bin Hawu ba tey moom ci waa Ayni Naadira Cheikh Tidiane dem na ba gént sax yàlla wan ko alquran yëpp ne ko nii lañ ko wàccee مك أقوان تجرم نار الأمون لبايا وهو قد حفظ القرآن سابع حجة خجال في يوم المعارف جاهد ولاقاه أقتاب مشايخ كملو موي جانغ خم خم بيم أمي فكيان أجرم لقو بايا انتك الجبر ورقير رك شوت دينم بام أمي فكيان أجرم بيان بايا أجيام يبين أدنى تبين أدنى ci mbas boo xam ne nii dafa amoon feebar ñoom ñaar ñi ngi génn ci àddina mu fase jabaram ji parce que itte ju kawe ji nga xam ne moom la amoon gis na ne heure boobu bu ko amee jabar dana dox digganteem ak sàkku xam-xam mu fase jabar jooju dem sàkku ci xam-xam jàng fiq jàng yi muy jàng yàlla nag may ko ci mbaaxam xam-xam yoo xam ne jàng ko fenn te ilmul kalaam jàng ko fenn waaye amul koo xam ne nii mën nga ko cee muy jàng yàlla may ko ilmu ladunni mu nekk jaamukat yàlla boo xam ne nii kuy jaamu yàlla la suba ngoon bëgg nit ñu baax ñi di fu nekk pour jokkoo borom xam-xam yi sëriñ bi nga xam ne moom la njëkk a dajeeg Tayib bin Muhammad bin Abdullahi Cherif kooku la njëkk a ci sëriñ jàpp ci moom kooku dafa doon ñaari xutbu moom xutbu la bàyyam xutbu la maamam xutbu la bàyyi taxam gi nga xam ne Muhammad Tuhaami la tuddoon kooku it xutbu la woon ñooñu ci la njëkk a jàppee. mooy sëriñ bi nga xam ne moom la njëkk a jàpp nga xam ne mu ngi nekkoon ci tariqa attibaa aljazuliya mu dem ba ci kanam mu daje sëriñ bu ñuy wax Muhammad bin Hasan alwanjaliji alzabibi kooku wax ko ne ko yow da nga àgg ci maqaama imaamu Shazuli te imaamu Shazuli maqaama bu rëy la am ndax Cheikh Tidiane daf doon wax ne tariqa Shazuliya دنا دوجي طريقه فولي لين بام دي سون طريقه بي تابعنا يغلب على كل طابع ولا يغلب عليه طابع من سون تامبوي طريقه بي دا فاي نوت تامبوي يبت بن تامبوي طريقه دغول لا متاتك والي بو ني واخ سيدي عبد الله بن سيد العربي باتاي كوكو با ني تاغو مو نيانال كو يالا نكو يالا يالا جابو سي سالوخ نيات يون مو جيل سي كوني واخ ابو العباس احمد الطواس jël nga ci moom kooku sartaal ko xalwa Cheikhu Tidiane nanguwut mu jox ko ay tur mu def bu defee ba ci kanam bu gisul dara mu bàyyi moom la bàyyi di melal ne wa mahma raa wirdan talaqana musrian wa in lam yajid nafan fa dalika yuhmalu wa qad taraka al awraada turan bi asriha bi idni rasulillahi zaaka almukamilu góor bu gis dana jàpp ci yow bu defee bu gisut lim itte li nga xam ne moo dëppoog itteem ji mu nekkoon gisu ko mu bàyyi ko noonu la nekkee di wër sëriñ si ba ba muy àggee ci yontu bi daañu ci agsi cheikh tijaani abul abbas lañ koy wax abul abbas mooy mooy dàkkante la arab dafay dàkkantalee nit ci doomam waaye cheikh tijaani amul doom ji ñëw abbas bañ koy wax abul abbas ak kii la aada ci waa Maroc ñi tudd ahmad yëpp ñi leen di wax abul abbas moo tax nga gis ñuy wax ne abul abbas sa tiyi abul abbas ahmad tawaas abul abbas eh, ahmad sukayri ji loolu seen aada ñi tudd ahmad ñoom la ñuy dàkkantalee di leen wax abul abbas waaye moom amul doom ji ñuy wax abbas jël na wirdal xalwatiya sëriñ bi nga xam ne moom la njëkk daje kooku muy tayib boobu moom dundam yépp ci salaatu ala nabi la ko doon def maamam mi nga xam ne moom la doon maamam daf daan jàng ñaar fukki millions yi salaatu ala nabi allahuma salli ala sayyidina muhammadin nabiyil ummi yi ci bés na xalwa ba yonent bi sallallahu alayhi sa loxo yi ak sa tànk yi nangul nit ñi lay ñëwal ku la ku foon sa tànk yi mbaa sa loxo yi rek dugg àjjana mu dégg ko benn yoon taxul mu génn mu dégg ko ñaari yoon taxul mu génn mu dégg ko ñetteel yoon ci la door a génn nga xam ne kon ñim ñi koy jàppati ci ñoom seen yoon salaatu ala nabi salaatu ala nabi nag amul lu mel ni moom lii Busayri wax ne wa tazawadi taqwa fa in lam tastati fa min asalaati ala nabi tazawadi na nga yóbbaloo ragal yàlla bu la jafee na nga yóbbaloo julli ci yonent bi bugul ne duur ne dafay xeeb ragal yàlla waaye boo yóbbaloo julli ci yonent bi daan la àggale ci ragal yàlla ndax julli ci yonent bi lu mu lay may huwa alladi yusalli aleykum wa malaikatuhu li yuxrijakum min azulumaati ila nuur yàlla moo wax ne moom yàlla mooy julli ci yéen moom ak yonentam ak malaakaam yi moom ak ay malaakaam ñooy julli ci yéen yàlla bu jullee ci yéen lu mu leen defal mooy def leen di génne ci lëndëm yóbbu leen ci leer looloo tax sëriñ si di wax ne ku amul sëriñ sax du mën a jubal salaatu ala nabi mën naa nekk sëriñ Cheikh Tidiane jàpp na wirdul qaadiriya ci ñi nga xam ne ñoo ko daan joxe ci faas tuddin gi ko jox noonu rek lañ koy waxee jël na wirdul qadiriya ci ñi nga xam ne ñoo ko daan joxe ci faas jël na wirdul nasiriya jël na wirdul xalwatiya ndax Mouhamed bin Abdurahman al Azhari nga xam ne mu ngi nekkoon ca boori Jazair jël na ci moom ba mu génnee nag pour dem aji mu jaar Tunis ban at la Cheikh Tidiane juddu ci gàddaay yonent bi sallallahu alayhi mu ngi juddu junne ak téeméer ak juróom fukk gannaaw bu yonent bi gàddaayee ba am junne ak téeméer ak juróom fukk ci la Cheikh Ahmed Tidiane juddu bi mu demee ba junne ak téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-benn ci la génn pour dem aji mu jaar Tunis bi mu jaaree Tunis toog na fa sax jàngal na fi xikam al ataaya boo xam ne naataay laay moo ko def toog na fa at ba bés buur bi sax bi di ko leetar ne ko damaa bëgg nga toog fii dëkk ak man nekk ak man ba mu jotee leetar boobu tontuwul boobu rek la génn dem mu génn dem ci ci yooni ajam bi muy ajee misra la jaar jaar qahira mu dem dajee foofu benn wàll bu ñuy wax mahmudul kurdi ba tey mahmudul kurdi ci wér xanwa ci xanwa téye la nekkoon fekk njëkk muy àgg foofu sax am na beneen wàlli boo xam ne ca Tunis la nekkoon xutbu bu nekkoon foofu waaye ñeenti nit rek ñoo ko mën a gis am na ci kenn koo xam ne Abdourah Abdou Samad Arrahami lañ ko doon wax ci moom la ci Cheikh Ahmed Tidiane jottaliku ndax bëggoon naa gis sëriñ boobu mënu koo gis waaye ñu ne ko am na ñeent rek ñoo ko mën a gis boobu ngay jottali moom ñoo ngay gis mu yónnee ko addiya xaalis boo xam ne ñu ngi koy wax eh, mahbub mu ne al mahbubu arsala mahbuban kii kii ki nga xam ne nii mooy ki jaam bi yàlla bëgg waaye yónnee na tim mahbub muy xaalis ndax xaalis ñëpp ko bëgg cheikh mu jugee foofu dem Qahira ba mu jógee Qahira dafa gis mahmudul kurdi mahmudul kurdi wàlli bu mag la cheikh Tidiane bi mu ñëwee ci moom dafa nettali mahmudul kurdi gént bu mu géntoon ndax cheikh Tidiane dafa gént gis kooku ne ko kulli nu xaasul mun man suma lépp përëm la mu ne ko uqallibu nu xaasaka zahaban sa përëm googu yëpp danaa ko def muy urus mu ko nettalee sëriñ bi ne ko waaw noonu la tëddee nga xam ne kon sëriñ mooy koo xam ne nii boo àndeek moom bu fekkee daf laa fekkoon nga nekk përëm mu yóbbu la ngay urus Cheikh Tidiane ñaan ko mu damaan ko garanti ko pour mu dem aji mu garanti ko dem ak dikk ba mu demee Makka mu tasee faak beneen wàlliyu bu ñuy wax Ahmad bin Abdullahi alhindi kooku mu nekk benn wàll yi boo xam ne tim moom dafay am waasita pour nga gisanteeg moom ba mu gisee ne Cheikhu Tidiane radiallahu anhu ñëw na la wax ne kii nag sama mbóot yi ma amee yëpp kii moo koy doon taalibeem bi nga xam ne mu ngi ko doon liggéeyal fukki at ak juróom-ñett taalibe bu mel ne ko man fukki at ak juróom-ñett maa ngi lay liggéeyal di sonn ci yow tey shérif bii ñëw rek waa Fass bii ñëw nga jël sa mbóot yëpp marxamum nga jël sa mbóor yëpp jox ko ko nar maa bàyyi man mi nga xam ne fukki at ak juróom-ñett yi maa ngi lay liggéeyal sëriñ bi ne ko lii moomuma ko marhaba lii moomuma ko mbiram yàlla la kii mooy borom ndax bu ma ko moomoon bala ma laa caa ji suma doom ji waaye man moomuma ko mooy borom moom laa moom la fi doon xaar sëriñ boobu wax Cheikh Ahmed Tidiane ne ko moom ci fukki fan ci zil xijja ci lay génn ci lay génn àddina ñaan na Cheikh Tidiane mu ñëw jullee ko te mu ñaan na ko tim gannaawam mu dimbale doomam ni mu ko waxee woon ci fukki fan ci zil xijja mu génn àddina Cheikh Tidiane jullee ko ba pare dimbale doomam ji ci ay mbooti pay yàlla ba mu demee Madina Munawara ziyaar yi nabi sallallahu alayhi wa sallam muy umniye bu màgg ba mu demee foofu taseefan afaak wàll yi bu ñuy wax Mouhamad bin Abdul Karim Assamani kooku tim wax ko wax Cheikh Ahmed Tidiane ne ko yow da nga jot maqaama Chazuliya da nga jot Qutbaniya wax Cheikh Ahmed Tidiane ne daf ko bugg a dugal xalwa ay ñetti fan mu bañ mu jox ko ay tur bàyyi ko mu dem ba mu jugeyaatee foofu mu jaaraat Misra Mahmoudul Kurdi mu ko garanté woon nag jox ko lijaasa ne ko na nga yaraate ci ci ci tariqa alxalwatiya Cheikh Tidiane bañ ne moom daal yëgu ci boppam lu mu war a ne moom du ko def sëriñ bi ne ko joxe wirdo wi faj ko ñi nga xam ne nii ñoom ñoo jàpp ci yow moo tax ba mu ci junne ak téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñett ba mu gi mu njëkk a taseeg mooy taalibeem bi nga xam ne Mouhamed al Mishri moom la eh, dajeeg mooy bind téere bi nga xam ne ci tariqa bi jaami al ibn Mishri lañ koy wax nga xam ne du téere buñ mool kooku la jox Cheikh Tidiane jox ko wirdul xalwatiya kooku moo nekkoon ilimaan di jiite Cheikh Ahmed Tidiane fukki at ak juróom-ñett yoo xam ne Cheikh Ahmed Tidiane ci gannaawam lay julli ba gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko alxalifatu walladi yaumu naasa yi nga xam ne moo amee maqaam bi moom moo war a jiite nit ñi boobu la Cheikh Ahmed Tidiane commencé di jiite waaye njëkk loolu Mouhamed al Mishri boobu moo ko doon mu jugee foofu nag 1191 gannaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam junneeg téeméer ak juróom-ñeent fukki at ak benn ñëw faas ziyaara xablu mawlaa Idris kon nga gis ne Cheikh Tidiane wàllu yu yàlla yépp daf leen daan ut lu baax fu ne la ko utee nga xam ne yow boo ñëwee ba agsi ci moom rek fekk nga li nga waroon a ut yëpp moom utal na la ko loolooy xikma bi boo agsee ci moom agsi nga ci daj dëkku gi mu ziyaare Mawlana Idris ci yoonam bi muy dem Faas ci la bi nga xam ne mooy Sidi Ali Harazimi taseeg moom ci dëkk bu ñuy wax wëj sa ba mu dajeeg moom fekk Sidi Ali Harazimi gént na bu yàgg dajeeg Cheikh Ahmed Tidiane waaye fàttewoon na gént gi Cheikh Ahmed Tidiane nettali ko gént gi ba mu xam ne kii mooy kii gisoon Cheikh Tidiane ne ko yonent bi war na moom bu yàgg bu yàgg ba léegi maa ngi lay ut gisuma la xanaa tiitoo ci sonn bi ma sonn pour gis la ci dëkk bu ñuy wax wëj dëkk foofu la foofu la dajeeg moom gannaaw nag mu delluwaat ma telmesaane dem ci xarya bu ñuy wax la mu ngi dend ak dëkk bu ñuy wax abi samxuuna abi samxuuna turu benn wàll yu bu mag la woon mu nekk ci diggante boobu ba junne ak téeméer ak juróom-ñeent mooy bi mu amee moom ci dund ñeent fukki at ak juróom-benn ci la door a am fatul akbar ñeent fukki at ak juróom-benn boo ko seetee boo ko calculé moom moo lay jox wali yun wali yi boo ko calculé waaw gi six la laam gi tëti la yaa gi ten la boo leen boolee muy 46 46 mo toll ak waliyu Cheikh Ahmed Tidiane bam amé amee atam waliyu nak ci la am fathul akbar ci la gis yonent bi sallallahu alayhi wasallam sallam kifahan shifahan shifaaxan bi sallallahu alayhi wasallam jox ko jox ko tariqa bi jox ko wirdo wi muy témèr ci astaghfirullah ak témèr ci salatu ala nabi bu mu do ba mu demee ba teg ci ñeenti at la ko door a mottali téeméeri laa ilaha illa allah wirdu wi door a mat noonu ba mu demee nag ba 1214 non ci la Cheikh Ahmed Tidiane ci gannaaw juddu yonent bi ci la ci eh, gàddaay yonent bi ci la gàddaay moom ay nimaat yi nga xam ne fa la dëkkoon ndax buur bi dafa mujjoon am fiiraange ci taalibe Cheikh Ahmed Tidiane yi ak tasaaroo gi ak jublu gi nga xam ne ñu ngi koy jublu ñu mujj di ko xatal nga xam ne loolu mooy a mooy aadaay yàlla ci ñu màgg ñi ndax li tax pays yàlla bi kenn du ci dugg dugg bu wér fekk yaa ngi am yaa ngi sukkandiku ci leneen lu ma yàlla moo tax yàlla ñim tànn force danañ dem ba nga xam ne lépp luñ bëggoon a yaakaar lu ma yàlla rek danañ ci naagu mooy li bàyyi di wax ne ajral azaminhum li alla tarkana ilayhimu bal lil ilaahi farkanam boo gisee wàllu yàlla ñu koy lor yàlla daf koo def pour bañ wàllu yu boobu di di sukkandiku di dépend ci jaam yi dafay bugg nga xam ne jaam yi man mënuñ laa jëriñ képp koo yaakaaroon da nga naagu ci moom pour boo demee nag ba naagu ci jaam yëpp delluwaat ci yàlla boobaa yàlla doon laa tànn mu gàddaay foofu dem Faas bi mu ñëwee Faas mu taseeg buur bi nga xam ne mooy maami chérif yi fa nekk ba tey nii Mawlaay Suleymaan mu nekk koo xam ne ku yàlla baaxal la mu gëm Cheikh Ahmed Tidiane yaatal ko jox ko këram gi nga xam ne kër ga ba léegi mu nga foofu ci Fass kenn dëkkatu fa ñu bëri xamuñ ko waaye soriwut zaawiya bi Cheikh Tidiane daf ko daan dox mu jox ko kër googu ñu koy wax daarul miraayati moom la bàyyi di wax fa mu dëkkoon noonu moo tudd bulayda bulaydatul laaxat am miraayatun aqbalat بدرداس من وادي السبو فخلاء بتلك المغاني كان للقطب شيخنا حياة وفيها للطريح سواء فهلا Cheikh Ahmed Tidiane dëkkoon ci daarul wilaayati waaye Cheikh Tidiane ba ko buur bi joxee kër gi pour mu dëkk fa ci fegoom ak mooy tëndi ku lu daganul te xam ne ne buur yi dañuy am doole léeg-léeg dañuy not nit ñi nangu kër nit jox la xamul ndax kër gi nga ko jox këri nit la woon wala lu dagan la pour mu dëkk ci wala lu daganul mu bañ ci commencement am ba yonent bi ne ko dëkkal ci kër gi waaye charte bi mooy weer wu jot da nga génnee xaalis boo xam ne fekkoon da nga doon rent da nga ko doon luyee li nga ko waroon na li nga waroon a fay weer wu jot moom ngay génnee joxe ko sarax jënd ko ay mburu saraxe ko mu nekk loo xam ne moo lay daganal dëkk ci kër gi mu ñëw ci zaawiya bi fi nga xam ne zaawiya bi moo fa nekk moo ko jënd ci xaalis boppam tabax fa zaawiya bi te fi zaawiya bi nekk ba nga xam ne doogu zaawiya doogu dara xaraab la woon am na ay saalihin yoo xam ne dañ daan wax ne toujours ñoom ñu ngi dégg foofu ay sikar ñu ngi ko dégg foofu tudd xamuñ wax jooju xamuñ wax jooju xamuñ wax jooju ba Cheikh Tidiane dëkk fa di fa def wazifa ñi fay tudd yàlla suba ngoon bi nga xamee ne tabax na zaawiye bi mu ngi tabax zaawiye bi buur bi daf koo yónnee xaalis mu delloo mu ne soxlawu ko moom zaawiye bi zaawiyatu umruha qaa'imun billaahi loolu tax ba léegi foo bëgg a taxawal zaawiye boo xam ne mu ngi aju ci li Cheikh Ahmed Tidiane aju woon ba léegi zaawiyatu umruha qaa'imun billaahi bu jafee rek ene gi moo des buur bi yónnee ak xaalis bi Cheikh Tidiane delloo mu yónnee at xaalis bi yoonu ñetteel taaliba yi gis ne daal lii daa rafetul ñu koy delloo yooyu ñoom ñu jël ko plan dem tabax ci benn jàppukaay waaye noonu la daanoo ba mu daanoo nag ñu door a xam ne li ci Ahmad Tijaan yi doon aaye ñi koy ñi ñiy nëbbatu di ko def mu munuñ koo def mu mukk ci gannaawam kon kooku ku nekk xam na ne sëriñ bu bu fegu la mu nekk koo xam ne ku bëgg yàlla la ku jeex ci yàlla la ku sukkandiku ci yàlla la nekk koo xam ne jaamu yàlla rek mooy liggéeyam daf daan def nim daan lekkee moom ci bésam loolu yëpp ci yar sa bopp la xam naa ne fi mu nii bëri na ñoo xam ne nii da nga gis ñuy def ay régime ak yooyu pour wàññeeku fii kollu gi des fii pour ëllëg buñ buggee ngoro yooyu gaa yi duñ leen nangul am na ñoo xam ne buñ baraaje du baax yooyu moo tax ñuy dugg ci dugg ci kii régime yu métti yooyu Cheikh Tidiane xam nga régime moom nan la woon 10 heures ci bëccëg lay lekk li mu bëgg li tee yëpp 10 heures ci bëccëg la koy lekk du lekkaat ba 10 heures ci bëccëg waaye loolu lépp liñ ci jublu ñoom mooy pour mën a dundal guddi parce que fi ne nii boo toogee ba 11 heures nga yàpp bu baax dóor laax ba pare guddi nga ne da ngay naafile du sotti boo commencé tim nelaw waaw boo commencé da nga nelaw moo tax moom 10 ci bëccëg lay lekk ba 10 ci bëccëg benn taalibe bu ñuy wax Moussa ibn Mahzous dafa mas a ñëw ci moom ne ko man daal cheikh dundal guddi daf maa jëf cheikh Tidiane ne ko da ngay essayer bés ngay lekk benn yoon ci mu ne moom ko commencé ci commencement bi métti na ci moom waaye mu gi dafa mujj easy yomb ci moom mu mujj di dundal guddi te du ci am benn problème te dundal guddi ci yëf yi la bokk ndax Abdullah ibn Omar ku baax la yonent bi ne neama rajulu abdullahi law kaana yuqimu leyla yonent bi daf ne ah abdullahi mii de ak a baax bu fekkoon ne de rax na ci di guddi julli ba ci julli guddi pour xamal ko rek julli guddi naka la mel ma ne Cheikh Tidiane noonu la doon lekkee kurusam gi nga xam ne moom la daan téye di ko wirdoo kurus yi yusur lay doon waaye yusur gi nga xam ne ni amul benn xaalis nii rek la mel bu ñuul kukk su koy rëjaa ko wax mu ne nag waa si yi ñoo siiwal ne al annaab yal ahbaab jël leen kurusi annaab di ko wirdoo mu ne waa Tunis a ko siiwal waaye Cheikh Ahmed Tidiane kurusi yu sur la amoon kurusi yu nag am na lu muy jëriñ maa ko jàng ci téere mu ne di ko xool nii dafay leeral bët xam naa bu fi amoon ko fiy jaay gars yi ne moo ma neexal comme mu gis waaye gisuma ñu ko fiy jaay nag dafay dafay leeral bët ñaareel bi tam am na beneen njëriñ jigéen ji nekk jigéen juy matu bu ko bu ko amee mat gi dafa yomb am na ñetteel boo xam ne maa koy nëbbu waaw dégg nga noonu la Cheikh Ahmed Tidiane yaroo ba yàlla may ko li nga xam ne nii moom la ko may tariqaam bi tariqa mahdul fadli wa ridwaani la tariqaab sell ngëneel la borom xam-xam yu bari tag nañ ñi nga xam ne ni nekkuñ ci tariqaam bi tag nañ am na ku ñuy wax Ahmed Nasri Nasri illawi tag na Cheikh Ahmed Tidiane ndax kooku borom bindkat yi taarix bu mag la ci Maroc mu ngi bind téere bu ñuy wax istiqsa fi axbaari maghrib al aqsa ñetti xaaj la du wut ab Tidiane waaye indi na ci téere boobu wax ne Cheikh Ahmed Tidiane wàllu yàlla yi gën a màgg ci la boobu am na ku ñuy wax Bayram Tunisi ba tey ci téeréem inna Cheikh Ahmed Tidiane wax ne alqutbul jaami Seydi Ahmed Tidiane wax ci moom ay ngëneel am na ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne nii ba ci Yusuf Nabahani bi nga xam ne bàyyi koy tuddee muhibu rasul nga xam ne téere bii nga xam ne moom la bàyyi def ñi koy gàmmuwaatee muy eh, eh, nuurul basar laamee boobu dafa wax ne def koo daf koo rabbee ci yoon yi nga xam ne yusuf nabahaani moom la rabbee téere mi nga xam ne moom la ñuy wax taybatul garra yusuf nabahaani moomu tim tudd na Cheikh Ahmed Tidiane ci téeréem wax ne bokk na ci góor ñi nga xam ne jël nañ wirdo jël nañ si zikkar ci yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam ci xoole ci lu dul nelaw loolu nag ñu dana ko dégg ne loolu lu muy amee sax na ñi jàng hadis yi jàng sunnaa ngi nii jàng nañ ci tawxid ba ci tawxiid yi nga xam ne ñu ngi koy jàngale ci sanawil azhar sax dañuy wax ne dañuy wax ne kullu ma jaaza an an yakun an yakuna mujizatan li nabiyin jaaza an yakuna karamatan li waliyin lépp loo xam ne dagan na yàlla def ko muy muy muy mujisa kaawteef ñeexal ab yonantu dagan na mu nekk ñekk karaama ñeexal ab wàlliyu xanaa liñ uutee yonantu dafay wax ne maa def lii ku mën na def waaye ab wàlliyu moom du wax loolu wàlliyu mën naa def karaama sax te du ko yëg bu fekkee nag yàlla baaxee ne yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam may ko mujjiza boo xam ne nii dem na ba muy eh, rañaan yàlla wan ko yonantu yi mu jiite leen julli kon gis leen wax ak ñoom gis Moussa di dàgganteeg moom digganteem ak boromam demal mu wàññi la julli juróom fukki julli sa xeet bi duñ ko man yàlla santoon na ko banu Israaïla manuñ ko te Moussa ñaata junne allah de yonent bi sallallahu alayhi wa sallam door a ñëw yàlla defal loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu mujjiza moo tax yàlla di defal wàllu yi ci karaama ñi gis walu yàlla ñi gis yonentu wala ñi gis ay walu yo xamne ni ñi fi jugge won lañ ndax yàlla moy may lu ko neex ku ko neex yàlla kenn tënku ko wa innal bi yadillaahi yutihi man yashaa yàlla da nay dekkal ndax ba Ibrahima bam mu yàlla rabbi arinii kayfa tuhil tuhyil mawtaa qaala awalam tu'min qaala balaa walaakin liyatma'inna qalbi qala faqud arba'atan min at tariq wasurhunna ilayk summa ij'al alaa kulli jabalin minhunna juz'an summa ud'uhunna ya'tuunaka sa'yan kon dekk gis na ni yàlla di dekkalee foofu bu fekkee yàlla dekkal na ab picc boo xam ne pour Ibrahima am itminaan ndax yàlla mënta dekkal benn ndax mënta mënta dekkal yonent bi nga xam ne sax deewut sax moom pour ab jaam am itminaan am yaqin ci li nga xam ne nii ci loolu la nekk ah kay yàlla mën na loolu ku ko amul amoo ko waaye bu mu tax nga weddi ko ndax karaama wàllu yàlla yi.